bismillah asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp ci àddina bi na nuyu mbokki jullit yi ci àddina nuyu Sénégal na ñu ngi nuyu Sénégal ñu nuyu suñu institution yi na ñu ngi nuyu suñu institution yi di leen ñaanal yàlla di ñaanal yàlla da ko dalee ci président de la la ko dalee ci président de la république. ba ko fi jëmmal fii ci mbooloo mi. ba ki ko jëmmal fii ci mbooloo mi. ba ki ko jëmmal fii ci mbooloo mi di monsieur le préfet. ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax. ñu leen di ñaanal yàlla bu baax a baax. yal yàlla dëgëral leen. yal na yàlla dëgëral leen. yal yàlla xamal leen li tax ngeen toog ci place yooyu. yal na yàlla xamal leen li tax ngeen toog ci place yooyu. yal yàlla jubal leen ngeen mën ko def ni ko yàlla bëggee. yal yàlla jubal leen. ngeen man koo def ni ko yàlla bëggee. mu ngi ndokkeel Sénégal yëpp. sëriñ bi ne mu ngi ndokkeel Sénégal yëpp. senegal yi julli démb ak Sénégal yi julli tey. Sénégal yi julli démb ak Sénégal yi julli tey. ñun ñëpp ay jullit rek lañ. ñun ñëpp ñoo dajee ne yàlla kenn la. ñun ñëpp ñoo dajee. ne yàlla kenn la. ñun ñëpp ñoo dajee ne yonent bi yàllaa ko yónni. ñun ñëpp ñoo dajee ne yonent bi yàllaa ko yónni. ñun ñëpp dajee nañ ne alxuraan mooy suñu téere. ñun ñëpp ñoo dajee ne alxuraan mooy suñu téere. ñun ñëpp ñoo dajee ne wax ne wax ne yonent lañ bëgg a roy. ñun ñëpp ñoo dajee wax ne yonent bi lañ bëgg roy sallallahu alayhi wa sallam. ku nekk nag ak na nga gisee ne lu nga koy war a defee. ku nekk nag ak na nga gisee ne yow noonu nga ko war a defee. loolu fadu la loolu fadu rek la. loolu fadu rek la. fadu fadu. fadu rek la. loolu la. loolu la. waaye taxul kenn wax ne maa nekk ci kaw kenn ci diine. waaye taxul kenn wax ne man maa nekk ci kaw kenn ci diine. ñun ñëpp ay jullit rek lañ. ñun ñëpp ay jullit rek lañ. ñun fii ci Mérina dégg ngeen xutba gi ñu jàng léegi. fii ci Mérina dégg ngeen xutba gi imam jàng léegi. xutba googu. xutba googu. mooy suñ méthode bi ñuy liggéeyee. mooy suñu méthode bi ñuy liggéeyee. déggu leen mu wax ne ñun ay suufiyanke lañ. déggu leen mu wax ne ñun ay suufiyanke lañ. déggu leen mu wax ne ñun ay salafiste lañ. déggu leen mu wax ne ñun ay salafiste lañ. li mu wax mooy ay jaamu yàlla lañ. li mu wax ne mooy ñun ay jaamu yàlla lañ. yoo xam ne ñu ngi jéem a góorgóorlu suñu kem kattan. yoo xam ne ñu ngi jéem a góorgóorlu ci suñu kem kattan. di def li yàlla bëgg ci ñun. di def li yàlla bëgg ci ñun. di wattandiku li yàlla di tere ci ñun. di wëttandeku li yàlla di tere ci ñun. ku nekk nag. ku nekk nag. sa droit. sa droit. nii laa gisee nii laay def. nii laa gisee. nii laa koy defee. yoonu kenn nekku ci. yoonu kenn nekku ci. sa digganteeg yàlla mi nga tax nga tànn ko rek la sa digganteeg yàlla mi tax nga tànn ko rek la. sa digganteeg yàlla mi tax nga tànn ko rek la concerné. waaye ku nekk. waaye ku nekk. lu baax rek ngay wut. lu baax rek ngay wut. ñi def démb ak ñi def tey yëpp lu baax rek la ñuy wut. ñi def démb ak ñi def tey yëpp lu baax rek la ñuy wut. pour seen bopp. pour seen bopp. pour seen réew. pour seen réew. kon yal na ko yàlla matale barke beeg mbaax geeg yëpp yal na ko yàlla may Sénégalais yi. kon mbaax geeg barke beeg lépp. yal na ko yàlla matale te may ko Sénégalais yi. te dëgëral Sénégal. te dëgëral Sénégal. ci diineem. ci diinam. dëgëral Sénégal ci réewam. dëgëral Sénégal ci réewam. may ko lépp loo xam ne réew mën na koo am ci mbaax ak ko lépp loo xam ne réew mën am ci mbaax ak kawe. loolu lañ bëgg pour Sénégal loolu la ñuy ñaan yàlla. sëriñ bi ne loolu lañ bëgg pour Sénégal te loolu la ñaan yàlla. yal na ko yàlla defal Sénégal. yal na ko yàlla defal Sénégal yaara bi. mbokk yaa ngi nii daje nañu encore beneen fois. mbokk yaa ngi nii. dajaloo nañ encore une fois. ngir yàlla moo tax ñu daje. ngir yàlla moo tax ñu daje fii. yàlla yonent santaane na ci xadisam ne nañ dundal bés bi ci ci lii ñuy def. yonent bi santaane na ci xadisam ne nañ dundal bés bi ci yii ñuy def. daje ca julleekaay ba julli. daje ci julleekaay bi comme niñ ko defee léegi julli. ñaan yàlla. ñaan yàlla. toroxlul yàlla. toroxlul yàlla. dellu ci yàlla suñu kemb kàttan. dellu ci yàlla suñu képp kattan loolu la ñuy jéem loolu la jéem defuñ ko ci kaw xam-xam defuñ ko ci kaw xam-xam defuñ ko ci kaw kattan defuñu ko it ci kaw kattan dañ ko def rek ngir bëgg a def li yàlla santaane ñu ngi ko def rek ngir bëgg a def li yàlla santaane ku am xam-xam ku am kattan ku am xam-xam ku am kattan sa wërsëg la yàlla la ko may sa wërsëg la na nga xam ne yàlla la ko may waaye ku ko yàlla mayut itam waaye ku ko yàlla mayut itam. yàlla mayu ko ko. yàlla mayu ko ko. amuñu xam-xam. amuñu xam-xam. waaye yàlla am na xam-xam. waaye yàlla moom xam na xam-xam. amuñu kattan. amuñu kattan. waaye yàlla am na kattan. waaye yàlla am na kattan xam ngeen. yàlla nañu faree. yàlla nañu faree. fiñ manqué la yëpp yàlla nañu fa fare fiñ manqué la yëpp. yàlla nañu fa yàlla faree yaara bi. te teg suñu tànk ci yoonu. ak teg suñu tànk ci yoonu. koo xam ne. woo xam ne. xuloo wuñoo kenn. xuloo wuñoo kenn. gaarlu waale wuñ kenn. gaaru waale wuñu kenn. suñu yoon nekkul ci lu keneen di def. suñu yoon newut ci lu keneen di def. ci li nekk rek ci lañ nekk. ci liñ nekk daal ñun ci lañ nekk ñu ngi si. te ci la julli ci Sénégal yëpp nekk. te ci la julli ci Sénégal yëpp nekk. boo ñëwee ku jógee Merina. boo ñëwee Merina. boo ñëwee Merina gii. nodd ak julleeg yooyu rek nga fiy fekk. nodd ak julleeg jàng alquran ak sellal rek nga fiy fekk. sellal yàllaa ko xam waaye ci ngay nekk. ci ngay nekk. julli. julli. jàng alquran. jàng alquran. dellu ci yàlla. dellu ci yàlla. tuubal ci yàlla. tuubal ci yàlla. suñu yoon yi nga xam ne sóobu nañ ko. suñu yoon yi nga xam ne sóobu nañu ko. mu yoonu Tiijaan. mu yoonu Tiijaan. lu tax ñu soobu ko. li tax ñu sóobu ko. dëgëral suñu bopp rek ci gëm yàlla. dëgëral suñu bopp ci gëm yàlla. takkale suñu xol yi ak suñu yëpp ak diine. takkale suñu ruux yi yëpp ci diine. ndax diine rek lañu am. ndax diine rek lañ xam. am na ñoo xam ne nag. <clears throat> am na ñoo xam ne nag. wattee nañ baatu diine. wattee nañ baati diine. lu ñuy tuddee humanisme. ñu ñuy tuddee imaamisme. imanisme. imanisme. moom la ñuy jël place yi diine léegi. ñoom la ñuy jël place yi diine léegi. boobu loo gis rek ñu yëngatu. loo gis rek ñu yëngatu. ce n'est pas humain ce n'est pas humain te dëgg-dëgg loolu dañ koy wax rek. te loolu dëgg-dëgg. dañu koy wax rek. ndax lépp luy lor doomu aadama. ndax lépp luy lor doomu aadama bi. ci ñoom rek la bàyyeekoo. ci ñoom rek la bàyyeekoo. ndax école bi ñuy jàngee. ndax école bi ñuy jàngee. école yi dajjal rek la. école yi dajjal rek la. lu ñuy fental ay baat yoo xam ne. lu ñuy fental ay baat yoo xam ne. tasaare nit ñi rek. tasaare nit ñi rek la. ak xiir leen loo xam ne àggu ci darajaay nit. ak xiir leen. ci loo xam ne àggut ci darajaay nit. ñu ngi wax humanisme waaye amuñ àgguñ sax ci darajaay nekk nit. ñu ngi wax humanisme waaye àggut sax ci darajaay nekk nit bi na ngeen dégloo. nit ki yàlla fonk ci boppam ba ne maa ko bind ak sama loxo. nit ki yàlla fonk ci boppam ba ne maa ko bind ak samay loxo. ne la tera ci kaw ci kaw ak suuf. ne nit ki maa ko teral ci kaw ak suuf. ne teral teranga yooyu di nga ci àggee. ne teraanga jooju di nga ci àggee. ci ragal ma man yàlla. ci ragal ma man yàlla mi la bind. ragal yàlla imaam wax na ko léegi. ragal yàlla imaam wax na ko léegi. dégg ngeen. mooy liñ la aaye nga bàyyi ko. mooy liñ la aaye nga bàyyi ko. liñ la digal nga góorgóorlu ci. luñ la digal nga góorgóorlu ci. boo defee loolu. boo defee loolu. àgg nga ci dayo ragal yàlla. àgg nga ci dayo ragal yàlla. yàlla ñu ko yàlla may. yàlla ñu ko yàlla may yaara bi. yal na yàlla may Sénégal yiw ak jàmm. yal na yàlla may Sénégal yiw ak jàmm. yal na yàlla dolli Sénégal yal na yàlla yëkkati Sénégal. yal na yàlla dolli Sénégal. yal na yàlla yëkkati Sénégal. ñaanuñu ko pour benn kuré waaye Sénégal lañ koy ñaanal yëpp. ko pour benn kuré. waaye waaye Sénégal lañ yëpp. Sénégalu jullit Sénégalu chrétien Sénégal yëpp Sénégal rek la. Sénégal jullit Sénégal Sénégal ak fi mën di nekk daal. yow sénégalais rek senegal Sénégal lañu lañ bëgg yàlla na ko yàlla taxawu. Sénégal boobu lañ bëgg. yàlla na ko yàlla taxawu. Sénégal boobu lañ bëgg yàlla na ko yàlla lañ bëgg. yàlla na ko yàlla moom lañ bëgg yàlla bu yàlla xiir senegal yi kese kese ñuy xëccoo ko xeex ba yàq seen réew. Sénégal boobu la ñuy yàlla ko yàlla bëgg ba nga xam ne sénégalais yi dara du leen xiir. ba ñu xëccoo ko ŋaayoo ko xiiroo ba yàq seen ab réew te lu yàqu rek daanaka ci loolu la bàyyeekoo te lu fi yàqu rek daanaka ci loolu la bàyyeekoo te xëccoowuñ dara nag xëccoowuñ dara nag li ngay xëccoo ko moomoon doo ko xëccoo li ngay moomu soo ko moomoon doo ko ki ko yàlla may rek moo ko moom ki ko yàlla may rek moo ko moom ki ko yàlla may nag ki ko yàlla may nag fekkee président de la république la bu fekkee ne président de république la. loolu la mooy yàlla sant nañu nañ ko topp dañ ko dimbale. loolu mooy ne yàlla sant nañu ko topp nañu dimbale. mooy sëriñ bi. muy sëriñ bi. yàlla jiital ci kaw nit ñi. yàlla ci kaw nit ñi. du yónnent. du yónnent. du malaayika. nitu kese la. nitu kese nit nag mooy ki ngeen xam. nit nag mooy ki ngeen xam. dina juum dina dina dina dina juum dina. def lu dul njuumte itam. dina juum dina defit lu dul njuumte. loolu yëpp yàllaa ko bindee noonu. loolu yëpp yàllaa ko bindee noonu. waaye daf ñoo wax nañ leen topp. waaye daf ñoo wax nañ leen topp. nañ leen topp ci kaw sàkku ngëneel. nañ leen topp ci kaw sàkku ngëneel. nañ leen topp ci kaw tegu ci kaw yoon. nañ leen topp ci kaw tegu ci kaw yoon. leen topp. nañ leen topp. ci sàmm suñuy làmmiñ. ci sàmm suñuy làmmiñ. ci wax lu ñu xamut. ci wax lu ñu xamut. ci dugg ci lu ñu xamut. ci dugg ci lu ñu xamut. loolu yëpp dafay sànq nit rek. loolu yëpp dafay sànq nit rek. waaye. waaye. dimbalante comme ay sénégalais. dimbalante comme ay sénégalais. pour intérêt Sénégal. pour intérêt Sénégal. loolu Sénégal bu nekk la war. loolu Sénégal bu nekk la war. Sénégal bu nekk war naa sàmm loolu. sénégalais bu nekk. yow war ngaa sàmm loolu ci saw réew. teguwul ci baatu président bi rek. teguwul ci baati président bi rek ne moo ko war a sàmm. déedéet ñun ñëpp ko war a sàmm. ñun ñëpp ñoo ko war a sàmm. bu ko defee moom comme fi ko yàlla teg. bu ko defee moom mu xam fi ko yàlla teg. mooy dimbalanteeg jaami yàlla yi. mooy dimbalanteeg jaami yàlla yi. am ci ñoom yërmande. am ci jaami yàlla yi yërmande. fonk li muy liggéey. fonk li muy liggéey. bokk ko. bokk ko ak sénégalais yi. bokk ko ak sénégalais yi. Sénégal bi juddu tey tey jii. sénégalais bi judd tey tey jii. dugg na bokk na. dugg na bokk na sénégalais la. am na ay droits yi sénégalais yëpp am. am na ay droits yi sénégalais yëpp am. te loolu yow moomu la ko yàlla di laaj. te loolu yow moomu la ko yàlla di laaj. Omar ibn Khattab. Omar. Omar ibn Omar ibn Khattab. dafa toog benn guddi jóg di doxantu. dafa toog benn guddi. jóg di doxantu. gis ben jigen gis ben jigen muy tek muy tek euh, kaleram ci kaw safara. muy tek cinam ci kaw safara. leg leg xale bi tax mu di ko teg noppi. leg léeg xale yi tax mu di ko teg noppi. bu ko defee Omar ibn Khattab ñoo ne ko looy def ni su ko defee Omar ibn Khattab. ne ko looy def ni mu ne. mu ne. bi ngay tëral. bi ngay tëral. di séddale alal yi pour jami yàlla yi. di seddale alal yi pour jaami yàlla yi. xale bu fer ci nga commencé. xale bu fer ci nga commencé. waaye xale yi di namp waxoo ci ñoom dara. waaye xale yi di namp waxoo ci ñoom dara. amuñ lu ñu leen amee. amuñ lu ñu leen amee. bu ko defee bu ñu xiifee. bu ko defee bu ñu xiifee. amuñ lu dul di naxanteeg ñoom nii ngir nelaw loo leen. amuñ lu dul di naxanteeg ñoom nii. ngir nelaw loo leen. Omar ibn Khattab lu mu def. Omar ibn Khattab lu mu def. def na ko woy Omar woy Omar. dem na ko woy Omar woy Omar. ndeke xamoo dara. ndeke xamoo dara. ba mu delloo dal di soppi yem tëraloon yëpp. ba mu delloo dal di soppi yem tëraloon yëpp. nee na xale bii namp na ci jiitu nañ ko bay nañ ko fay. ne leen xale bii di namp na ci jiitu nañu ko fay. loolu mooy responsabilité. loolu mooy responsabilité gouvernement. bu la yàlla dénkee. bu la yàlla dénkee. mbiru jaam yi. mbiru jaam yi. na bàyyi sa xel ci jaam yi. na nga bàyyi sa xel ci jaam yi. ndax ñoo tax yàlla dénk la ko. ndax jaam yooyu de ñoo tax yàlla dénk la li nga yor. jaam yooyu ki juddu tey ci la bokk. jaam yooyu ki juddu tey. ci la bokk. màggat ma màggat ba am téeméeri at ci la bokk. màgget ma màgget ba am téeméeri at des ca biir néeg ba ci la bokk. ñooñu ñëpp am nañ loo xam ne. ñooñu ñëpp am nañ loo xam ne. yow la yàlla sant ne jàppalante ak yow mii yow la yàlla sant ne jàppalante jàppante la population bi. du dangay dem néegi ku nekk di ko laaj. du dangay dem ci néegi ku nekk di ko laaj loo soxla. waaye seetal li nga xam ne nag. waaye seetal li nga xam ne nag. mooy intérêt mboolem Sénégalais yi. mooy intérêt mboolem Sénégalais yi. ak ñi lay dimbale. ak ñi dimbale. ngeen sàmm ko ni ngeen ko war a sàmmee. ngeen sàmm ko ni ngeen ko war a sàmmee. waaye. xëccoo ak xeex ak. xëccoo ak xeex ak xiiroog naayoo. pouvoir ak. xëccoo pouvoir. loolu dafay delloo réew gannaaw rek. loolu dafay delloo réew gannaaw rek. ndax réew mu amul pouvoir amul gouvernement. ndax réew mu amul pouvoir amul gouvernement. du réew. du réew de. Eh, caaxaan rek moo fa am. caaxaan rek mooy dal di xam ci moomam réew. yàlla bu yóbbu suñu réew foofu. yàlla bu yàlla yóbbu suñu réew foofu yaara bi. waxuma kenn sëriñ bi nee na waxu la kenn nag gaaraluma kenn nee na gaaralul kenn damay wax rek nee na dafay wax rek comme sama droit comme dafay wax ngir droit yam ndax citoyen la yàlla teg na ma place boo xam ne nit ñaa ngi déglu yàlla teg na ko place boo xam ne nit ñaa ngi koy déglu bon al foog ma wax ak nit ñi li ma gis ne bon foog mu wax ak nit ñi li nga li mu gis ne yaakaar na ne dina defar réew mi buñ ci àndee ñun ñëpp. déggoo. déggoo. bëggante. bëggante. ku nekk sàmmal sa morom li ko yàlla jox. ku yàlla jox. xam na la. tamit yàlla jox na la. waaye dinaa xañ kii lim am. waaye dinaa xañ kii li ngir am ko man. ngir am ko man. yaay kan ñàkk a doy loo li nga yor la rek. doo kenn doo kenn doo kenn. benn nit rek la. benn nit rek nga. bi mu demee Soudan di waxtaan ak ñoom. sëriñ bi nee na bi mu demee Soudan di waxtaan. ak ñoom. ak ñoom. dégg naa ko wax ne. nee na dégg na ko wax ne. tontuwu ma ko sax. sëriñ bi nee na tontuwu ko sax. du sax moom lay tontu nii. du sax moom lay tontu nii moo tax muy wax déedéet. waaye jaru ko. waaye jaru ko. ne lii. ne lii. ay diplomatie yu mat sëkk ñoo ko mën. ay diplomatie yu mat sëkk. ñoo ko mën. ay borom xam-xam yu kawe ñoo ko mën. ay borom xam-xam yu kawe. ñoo ko mën. waaye ñii jógee ci daara ji. waaye ñii jógee ci daara ji. fu ñuy mën a jubalee ay nit. fu ñuy mën a jubalee ay nit. ndax xamuñ seen cosaanu problème mooy lan. ndax xamuñ seen cosaani problème mooy lan. mais dafa xamut lu ma doon def lan la. waaye dafa xamut li sëriñ bi doon def lan la. xamul ne seen béy yi sax. xamut ne seen bëy yi sax. seen nag yi. seen nag yi. seen tool yi. seen tool yi. loolu rek mooy seen cosaanu xuloo. loolu rek mooy seen cosaan. seen cosaanu xuloo. mooy seen cosaani xuloo. mooy seen cosaanu rayante. mooy seen cosaani rayante. kon toppatoo naa ba xam la ba xam la xew lan la ak li ko waral. kon sëriñ bi ne na toppatoo naa ba xam la xewal la xew ak la ko waral. loolu yëpp. loolu yëpp. mooy toog di waxtaan ak ñoom. sëriñ bi na na ba muy toog di waxtaan ak ñoom. du benn sëriñ moo toog ci biir ay taalibeem. du benn sëriñ moo toog ci biir ay taalibeem. mais ay naw la yu toog bëgg a déggoo rek lañ. waaye ay naw la yu toog bëgg a déggoo rek lañ. noonu la nit ñii di waxtaanee noonu laa doon waxtaan ak ñoom. sëriñ bi ne noonu la doon waxtaan ak ñoom. ñëwuma wax naa leen ne ñëwuma pour jàngal leen lu ngeen xamul. bim ñëwee jàngal leen lu ngeen xamul. bi may dem. bi muy dem. maa ngi ànd ak ay conseillers yu mat conseiller. nee na mu ngi ànd ak ay conseillers yu mat conseiller. ñu jógee Mauritanie. yu jógee Mauritanie. ñu jógee Niger. yu jógee Niger. yu jógee Burkina Faso. yu jógee Burkina Faso. yu jógee Sénégal. yu jógee Sénégal. te amul benn jotaay bu ñuy toog. te amul benn jotaay bu ñuy toog. lu dul toog nañ ñun kese waxtaan naka lañuy ñuy def. lu dul toog nañ ñoom kese waxtaan naka lañ war a def. ak nu ñuy war a nu ak ni ñuy war a dajeeg mbooloo mi. kon làmbatuwuñ. kon làmbatuwuñ. demuñ sëriñ buy waare. demuñu ci sëriñ buy waare. dañoo dem dañoo dem. waaye dañoo dem. xam mbooloo yoo xam ci daje mbooloo yoo xam ne. ci daje mbooloo xam ne. xam nañ li xam. xam nañ li ñu xam. wax naa leen ne ñu ñëwuñ pour jàngal leen. sëriñ bi nee leen. ñun ñëwuñ pour jàngal leen. ñëwuñ pour xamal leen lu ngeen xamul. ñëwuñu pour xamal leen lu ngeen xamul. waaye dañoo ñëw. waaye dañoo ñëw. yéen ak ñun. yéen ak ñun. suñ li ñu xam. suñ li ñu xam. suñ xam. naka la def ci peuple bi. naka la def ci peuple bi. ndax may na leen ñu déggoo. ndax may na leen ñu déggoo. wala mayu leen ko. wala mayut leen ko. su leen indilee safaan. su leen indilee safaan. bon li ñuy wax ne xam-xam la du xam-xam. bon li ñuy wax ne xam-xam la loolu du xam-xam. xam-xam dafay jegale nit ñi. xam-xam dafay jegale nit ñi. xam-xam dafay tax nit ñi bëggante. xam-xam dafay tax nit ñi bëggante. yàlla ñu yàlla may xam-xam boobu. yàlla ñu yàlla may xam-xam boobu. am pour ñun. mu am njëriñ pour ñun. ñu am njëriñ pour Sénégal. mu am njëriñ pour Sénégal. waxuñoo kenn. sëriñ bi ne waxuñoo kenn. jotewuñoo kenn dara. jotewuñoo kenn dara. lu nit wax baal nañ ko. lu nit wax baal nañu ko. ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan itam nit ñi baal ñu. ñu ngi ñaan itam waxkat yooyu ñu baal ñu. ndax benn citoyen rek lañ duñ benn citoyen sénégalais rek lañ. ndax benn citoyen rek lañ. benn citoyen sénégalais rek lañ. li Sénégal yi di jéem loolu la ñuy jéem. li sénégalais yi di jéem loolu la ñuy jéem. li sénégalais yi bëgg am pour Sénégal loolu lañ bëgg. li sénégalais yi bëgg a xam. pour développement Sénégal loolu la ñu bëgg. duñ ci tayal. duñu ci tayal. duñ ci bax duñ ci bañ itam ku ñu wax lu mu bëgg a wax. duñ ci bañ itam ku ñu wax lu mu ñu bëgg a wax. wàññiwu dara. wàññiwu dara. nit dañ koy yàlla daf koo may làmmiñ pour mu wax rek. nit yàlla daf koo may làmmiñ pour mu wax rek. ku nekk nag. ku nekk nag. ki nga doon rek mooy wax ci yow. ki nga doon yow mooy wax ci yow. Seydina Issa. Seydina Isa tase nag benn waay tase nag benn waay bés di ko woo ci diine di ko woo ci diine waa ji di ko xas waa ji di ko xas lu mu ko wax ci lu bon rek lu mu ko wax ci lu bon rek Seydina Isa delloo ko lu baax ci lu baax lu yem noonu Seydina Isa delloo ko lu baax lu xem ni lim ko wax waa ji ki àndat ne ko ki mu àndat ne ko yow ki yang lay xas yow nga di ko wax wax yu baax yow ki yang xas yow nga di ko wax wax yu baax mu ku nekk nekk ci rek ngay génne. mu ne ko ku nekk li nekk ci yow rek ngay génne. bon nañ jéem a lu bu baax a baax. bon sëriñ bi nañ leen nañ leen jéem a bu baax a baax. nekk ak suñu réew ci jàmm. nekk ak suñu réew ci jàmm. respecté suñu institution yi. respecté suñu institution yi. respecté ñi ko jiite. respecté ñi ko jiite. waxuma ñu ragal leen. waxut ñu ragal leen. waxuma ñu yaakaar ci ñoom dara. waxulit ñu yaakaar ci ñoom dara. dañ koy def rek parce que dañoo war a tabax. dañu koy def rek parce que dañoo war tabax suñu réew. te ñoom la yàlla def ñu jiite. te li ko dalee ci alkaati bi. li yi taxaw. ba ca président de la république. ba ca président de la république. ñoo bokk lu ñuy def pour Sénégal. ñoo bokk ñuy def ci Sénégal. gis ngeen alkaati yi nit ñuy yaatalalee mbedd yi pour ñu am jàmm. gis mbedd yi taxaw ci sécurité bi ndax ñu am jàmm. kooku. kooku. looy uteeg moom lan la. li nga war a uteeg moom lan la. bu la ne jaaral fii jaaral fii. bu la jaaral fii. jaaral fii. sa jàmm la. sa jàmm la. boo ko defut. boo ko defut. yàlla am na kàttan yàlla am na kàttan bon nag. bon nag. nañ dellu quelque fois damay wax ne man dootuma waxati. sëriñ bi ne. parfois dafay wax ne moom dootul waxati. parce que gisuwuñu may waxat ñan la. ndax gisu. ñi muy waxal ñan la. ndax boo waxee sa wax. ndax boo waxee sa wax. ku nekk firee ko nu la neex. ku nekk firee ko nu la neex. te benn awu ci yoon. te benn awu ci yoon. ndax nit bala nga ko bëgg a àtte. ndax nit bala nga koy bëgg a àtte. ñëwal dund ak moom ba xam ko. ñëwal dund moom ba xam ko. ñëwal toog moom laaj ko. ñëwal toog moom laaj ko ba xam li muy wax lan la. ñëwal toog moom gis ko. ñëwal toog moom gis ko. benn tubaab. benn tubaab. bind na téere ci baay. bind na téere ci baay. mbooleem safaan wax na ko ci baay. mbooleem safaan wax na ko ci baay. baay taseeg moom France. baay taseeg moom France. moom moo ñëw nuyu si baay bi mu déggee ne baay nga fa. moom moo ñëw nuyu si baay bi mu déggee ne baay nga France. baay na ko. baay na ko. dégg naa bind nga ci man. dégg naa bind nga ci man. mu ne ko waaw. mu ne ko waaw. mu ne ko man bindkat laa waaye binduma ci yow. mu ne ko man bindkat laa waaye binduma ci yow. xam nga lu tax. xam nga lu tax. maa ngi lay door a gis. ndax maa ngi lay door a gis. bon xamoo ma bay bind ci man. bon xamoo ma bay bind ci man. bon booy wax ci nit itam. bon sooy wax ci nit kii nag yow waxkat bi. waxal lu la neex yaa moom sa làmmiñ. waxal lu la neex. yaa moom sa làmmiñ. yaa moom sa gis-gis. yaa moom sa gis-gis. waaye ragal maandu maandu baax na. waaye maandu seet yàlla ci li ngay wax baax na. xam ki ngay waxat itam. xam ki ngay waxal itam. ndax ab dof ngay wax ndax ci ab dof ngay wax wala nit ku xam ngay wax. ndax ci ab dof wala nit ku xam ngay wax. loolu yëpp war nga ko jéem a ràññee. loolu yëpp war nga koo saytu ba jéem koo ràññee. bala ngaa atte nit. bala ngaa atte nit ki. moo tax ñu ngi ñaanal yàlla Sénégal. moo tax sëriñ bi ne ñu ngi ñaanal yàlla Sénégal. bu baax a baax. bu baax a baax. ci suñu xol. ci suñu xol. benn sénégalais rek la sëriñ bi ne benn sénégalais rek la. li sénégalais yi bëgg loolu laa bëgg. ne li sénégalais yi bëgg. loolu la bëgg. li sénégalais yi di wattandiku loolu lay wattandiku. li sénégalais di wattandiku. loolu lay wattandiku. liñ bëgg nag. liñ bëgg nag. war nañ ci jiital jàmm pour ñun. war nañ cee jiital jàmm pour ñun. bu ñu seet kii yàlla fal. bu ñu seet kii yàlla fal. waaye nañ seet yàlla mi ko fal.

di màgg si di yokkateku. di doonu ay di doonu ay xuloo ko sànniwante loolu baaxul. di doonu ay xuloo ko sànniwante keer yooyu baaxul. nañ leen jàngal leneen. nañ leen jàngal xale yi topp ci leneen. nañ leen jàngal bëggante. nañ leen jàngal xale bëggante. nañ leen jàngal fonk nit. nañ leen jàngal xale yi fonk leen jàngal seen institution. nañ leen jàngal xale yi fonk suñu institution. institution bi Macky Sall moo ko jiite. institution bi Macky Sall moo ko jiite. Macky Sall boobu benn Sénégalais rek comme Sénégalais yëpp. Macky Sall boobu benn Sénégalais la rek comme Sénégalais yi yëpp. waaye yàlla teg na ko responsabilité boo xam ne. waaye yàlla teg na ko responsabilité boo xam ne. bu ñu ko xamoon ñun. bu ñu ko xamoon ñun. dañ koy ñaanal yàlla waxtu bu nekk. dañu koy ñaanal yàlla waxtu wu nekk. ndax addina bii muy bëreet. ndax addina bii muy bëreet. ku xam addina boobu ni mu amee doole. ku xam àddina boobu ni mu amee doole. ak li ci nekk ci ay yu kenn xamul. ak li ci nekk ci ay yu kenn xamul. te yëpp a ngi tasaaroo ci addina bi. te yëpp a ngi tasaaroo ci addina bi. ku toog place boobu di la xeexal foofu. ku toog place boobu di la xeexal foofu. ku yàlla teg ci place boobu. ku yàlla teg ci place boobu. pour muy kooku ñaanal ko yàlla rek lañu am ci moom. kooku ñaanal ko yàlla rek lañu am ci moom. encouragé ko moom lañu am ci moom. encouragé ko moom am ci moom. waaye jëmmam kese kese. waaye jëmmam kese kese kese. bu wàccee foofu mu nekk. bu wàccee foofu mu nekk. Fatick lay ñibbi. Fatick lay ñibbi. mel ni waa Fatick mel ni waa Fatick yëpp. waaye fële mu nekk nag yàllaa ko fa taaj. waaye fële mu nekk nag ca pale ba. yàllaa ko fa taaj. waxuma pale de ci pouvoir la wax. fi mu nekk ci pouvoir yàllaa ko fa taaj. yàlla moomu nag daf ñoo sant ne nañ dimbalanteeg pouvoir boobu. yàlla moomu nag daf ñoo sant ne nañ dimbalanteeg pouvoir boobu. bu juumee ñun mën ko nit ñi mën nañ koo jubbanti. bu juumee nit ñi mën nañ koo jubbanti. ci kaw yoon. ci kaw yoon. bu juumee. bu juumee. nit ñi mën nañ koo delloo ci kaw yoon. nit ñi mën nañ koo delloo ci kaw yoon. ci kaw. ci kaw. Euh, yaru. yaru. ci kaw xam-xam. ci kaw xam-xam. ci kaw yéene bu rafet. ci kaw yéene bu rafet. waaye par force. yaay kan. yaay kan. loo am am doole état la ëpp doole. loo am am am doole. yàlla la ëpp doole. état ñoo la ëpp doole. am nañ yoo amut. am nañu. loo amut. bon yàlla ñu yàlla musal ci seen ay. kon yàlla ñu yàlla musal ci seen ay. ndax am nañ ko ba mu doy. ndax am nañ ko ba mu doy. yàlla ñu yàlla taseeg seen yiw. yàlla ñu yàlla tasaleeg seen yiw. ndax am nañ ko ba mu doy. ndax am nañ ko ba mu doy. encore beneen yoon. encore beneen yoon. maa ngi ndokkeel Sénégal yëpp ci suñu bés bu tedd bii. sëriñ bi nee na mu ngi ndokkeel Sénégal yëpp ci suñu bés bu tedd bii. di gërëmaat imaam waxtu wu nekk. sëriñ bi nee na mu ngi gërëmaat imaam. waxtu wu nekk. ndax waxtu wuñ dajee rek. ak waxtu wuñ dajee rek. waxtu wuñ dajee rek. waxtu wuñ dajee rek. danañ gis ne am nañ imam bu ko mat. danañ gis ne am nañ imam bu mat imam. imam bu xam. am nañ imam bu xam. imam bu am fit. am nañu imam bu am fit. imam bu amul benn complexe. am nañ imam bu amul benn complexe muy imam Cheikh mi. amul benn imam imam boo xam ne. amul benn imam boo xam ne. dajale na. dajale na. ay ngëneel. ay ngëneel. lu dul suñu imam bi dajale na ko. lu nit ne suñu imam bii dajale na yooyu ngëneel. ñu ngi koy ñaanal yàlla. sëriñ bi ne mu ngi koy ñaanal yàlla. yal na ko yàlla yokk yokk tawfiq. yal na ko yàlla yokk tawfiq yaa rabbi. ak kattan. yal na ko yàlla yokk kattan yaa rabbi. yal na yàlla yokk leeri xolam. yal na yàlla yokk leeri xolam. naka noonu imam yi koy dimbale ci jumaa yëpp. naka noonu imam yi koy dimbale ci. ginna ci ñëpp a ngi topp yoon boobu. ñoom ñëpp xam ne. nga yàlla santaane. lii a gën a sàmmante. ci wut ngërmande nit ñi. ci wut ngërmande ci wut contentement nit ñi. ci wut taggi nit ñi. amul benn fayda loolu. amul benn fayda loolu. taxawaay moom taxawaay mooy nit. taxawaay daal mooy nit. yal nañu yàlla may taxawaay. yal nañu yàlla may taxawaay. taxawaay bu kawe. taxawaay bu kawe. taxawaay bu kawe. taxawaayu góor. taxawaayu góor. waxtu wa nga xamee ne la la laaj na góor. waxtu wi nga xamee ne laaj na góor. yal nañu yàlla may ñu mën taxawaay yooyu. yal nañu yàlla may ñu mën taxawaay yooyu. ñu ngi nuyu monsieur le préfet. sëriñ bi ne mu ngi nuyu monsieur le préfet. ak. Euh, conseil bi ah. ak président conseil départemental. ñu koy nuyu. ñu koy nuyu ak ñi ñu ndax ñoo fi téwal doole ndax fi doole xam nañ ko. xam nañ ko. sëriñ bi ne mu di nuyu. di ñaanal di ndax yow lay jëriñ. wala population bi lay jëriñ. wala population bi lay jëriñ. yal na leen yàlla dimbale. ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay nuyu. sëriñ bi ne mu ngi lay nuyu monsieur le préfet. ñu ngi nuyu gouverneur. sëriñ bi ne mu ngi nuyu gouverneur. ñu ngi nuyu ministre de l' intérieur. sëriñ bi ne mu ngi nuyu ministre de l' intérieur. ñu ngi nuyu président de la république. sëriñ bi ne mu ngi nuyu président de la république. di leen ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla. yal na yàlla def leen ñuy yërmande pour Sénégal. yal na yàlla def leen ñuy yërmande pour Sénégal. ñoom tamit yal na yàlla def Sénégal muy yërmande pour ñoom. ñoom tamit yal na yàlla def Sénégal muy yërmande pour ñoom. yal na yàlla dimbale ñu. yal na yàlla dimbale ñu yaa rabbi. salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah. xalifatul saahibil fayda